mbokk yi assalaamu wa rahmatullahi taala wa ñu ngi dellu ci seen émission troisième âge comme niñ ko baaxoo woon di defee fukki fan ak juróom yu nekk ñu ngi jéggalu nag ci fan yi ñu génn te jotu ñoo egsi ci émission bi dañu amoon ngànt mm-hmm. gannaaw ba ñu nuyoo suñu kilifa Cheikh Seydi Mouhamadul Moustapha si xafizahu llahu wa ayadahu di ko ñaanal wér di ko ñaanal gudd fan di ko ñaan yàlla teel ko boppam te bañ koo bàyyeeg boppam di jël ñaan gi ak ziyaara gi di ko teg suñu capitaine maam Cheikh Ahmada Tidiane Sy di ko ñaanal moom it na ko yàlla tóoñal yan bi ko yàlla sàmm yal ko yàlla aar yal ko yàlla tette ci noonu la ñuy nuyoo directeur u télé bi di Haji Maxtaar Ndiaye di ko ñaanal moom it télé bi yàlla na ko yàlla yokk yàlla yokk ko ba fu ñuy dégg télé bu mag rek ñu fekk ko fa di ñaan euh, ñi nga xam ne ñoo nekk ci télé bi yëpp di fi liggéey mm. di ñaanal nag téléspectateur u Mourchid TV yëpp di ñaanal ñi ci diaspora bi mm-hmm. di ñaanal suñu wayjur yi nga xam ne ñoom la ñu jagleel émission bi muy troisième ase te ñoom ñëpp ñu toog tey di ñu seetaan tey nag dañu am suñu invité di suñu yaay Adja Mariam Teneng Sarr xam naa mère Teneng la ñëpp gën a miin ci biir daara ji muy suñu mbokk daara di suñu jur di mag mu yàlla baaxal tey nag eh, ñu am eh, comme émission thème mu tey bi day dellu ci ni kilifa di yabe njaboot ci wàllu sëyam te li tax ñu indi tem bii jamono dafa xaw a yàqu gannaaw buñ ko bàyyee mu nuyoo ba pare nag dinañ dugg ci biir tem ji jéem ko développé jéem a seet nan lañ ci weccante xalaat ak ñun ñi teew ak téléspectateurs yi kon dañuy bàyyi suñu yaay teneng mu nuyoo ak téléspectateur Mourchid TV yi soxna si bismillah walaay ndoy asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi nuyoo di ziar di jiital ci nuyoo beeg ziar bi nag ki ñu amul ku dul moom si Malick e, sunu sëriñ sunu wasila ki ñu yaakaar sunu tey ak ëllëg gannaaw yàlla tabaraka wa taala ci barke maamam yi ak waajuram yi mhm. ñu ngi di ko ziar ziar bu wér si Malick di ko ñaanal yàlla gudd fan gu ànd ak wér di ko ñaanal wér gu sax dàq incha di ko ñaanal yàlla eh, li nga xam ne bépp doomu aadama kuy jullit ak ku dul jullit loolu la bëgg muy gudd fan gu ànd ak wér eh, te yàlla nañu ko yàlla defal ci moom te di ñaan yàlla mu nangul suñu sunu nekk taalu bi ci moom ak njaboot si Malick ndax remplacé na ndey remplacé na bàyyi ci ñun remplacé nañu kilifa goo xam ne ba buuf taduwal dootul dañ incha allah ñu ngi koy ñaanal gudd fan gu ànd ak weer di nuyu nag mboolem ku am di ci jiital maam Cheikh capitaine incha allah eh, soxna Fatima soxna Umu ak maam Babacar ak sunu yaayu bopp macha allah ku am njabootu biir ak biteem góor ak jigéen mag ak ndaw ñu ngi koy ñu ngi leen di nuyu di leen sargal te di leen ñaan ñu ñaanal ñu ba émission bi liñ ci yéenee yàlla defal ñu ko ci dal ak mu antu incha allah ah. si Malick si barkeem jërëjëf soxna Teneng mhm. nuyoo yi ak ñaan yàlla nañ ko yàlla boole nangul amiin suñu góor gu tedd googu di ziyaara walla suñu maman suñu yaay di ko may émission bi tey nag yaay lañu may émission bi xam naa suñu soxna Teneng tey émission tey bi dañ ko jagleel suñu yaay yi ak suñu jigéen yi nga xam ne ñuy dugg ci néegu sëy defe naa buñ nee ni kilifa di waajalee njaboot ci wàllu sëy loolu thème bu yaatu la li tax ñu indi ko ci jamono tam xool kër yi tey ni mu demee ak xale yi ni ñuy sëyee léegi ak mag ñi niñ daan sëyee li ñuy njëkk ci point bi ñuy njëkk mooy nan la ñu war labate ci wàllu sëy macha allah ndooy eh, di waxaat yaay yëpp ñu ngi leen di nuyu di nuyu it bàyyi waaye yaay yi parce que néegu sëy rëy na ndaw na waaye labat ki ñuy labat suñ ko suñ ko yaree labat day rafet ki ñuy labat pour bëgg la sëy suñ su suñu ñëwee di la labat pour mu rafet damay wax bàyyi d'accord waaye yaay mooy paye ndax mooy yar njaboot ba tax ku ko gis fonk ko ku ko gis bëgg ko te ku ko gisit respecté ko ndax soo respectable eh, ku ñëw dina la respecté dina la jox cër te it dina xam fam lay teg fan la te loolu li ci ëpp yaay mu koy def ci njaboot waajur nag ñaar yëpp waaye yaay ndax mooy fexe ba doom am dignité mooy fexe ba doom am yar mooy fexe ba doom yiw ba ku ko gis bëgg ko waaye gàcce ngalaama it macha allah sunu góor gu tedd gi ndax ku gimmee ci biir ëttam yi nekk ci ndaw ba nekk ci mata sëy ku la fa fekk su ñëwee dina la jox cër ba ca war ba xëy na su la jëlee dina la respecté ngir jëm góor googu nga xam ne yow njabootam nga ci biir daara ji ah beneen bi si desit dëgg yàlla boo duggee ci néegu sëy wala eggaguñ foofu waaw ñu ngi ci labat bi rek xam nga tamit tey comme ni nga ko waxee mm-hmm. jigéen bi ñuy labat mm-hmm. fi ko fekkee di ko labat wala fi mhm. mu bëggantee defe mhm. naa ne da cee am solo mhm. parce que buñ ne ki diw dañ koy labat bu dee dañ ko fekkee sa peggu ndeyam dem fekk ko fa gis ko doyloo ko wala ay mag gis ko yéene ko seen njaboot parce que loolu daan na am nit daan na dugg ci kër gis xale ci yaram mhm. ni mu ko mayee ndox wala ni mu ko nàngamee mhm. mu ne kii kat sama caat ma wala sama taaw ba bu ko jëloon mhm. dina baax sama kër defe naa ki ñu fekk foofu labat ko ak ki nga xam ne danga nga taseeg moom ca dancine ba labat ko te saa yoo koy labat du du la yóbbu këram ndax ñaari labat yooyu soxna si ban wute wuute la am wallaay ndoy naa tontu te it mën nañ ci tontu wax dëgg yàlla ndax tey ñaan ñi sama waa kër jël yëpp seeni waajur bokk nañu ci li tax ma ne nañ fa dem daara ji tax na ma ne ñii est-ce que duma leen may sama doom yi ndax gëm naa ne suñu ñëwee eh, li ñu bëgg ci sëy ci njaboot walla eh, soxna dinañ ko fa fekk léeg-léeg damay xool ni rekk surtout nag ci biir daara ji ne ndax kii duñ ko may suma doom bii tudd turu suma doom boobu eh, te wax dëgg yàlla comportement bi daf cee bokk te doo ko fekk ci benn milieu bu ñaaw doo ko fekk it ci jotaay bu ñuy xeeb lu dul ci jotaayu daara ji ak it fekk ko seen kër te na mu war a mel mu mel ko surtout ki nga xam ne moo jëkk am nag soxna eh, wax dëgg yàlla yaayu ndaw soosu du tegu ci yoon baayam di ilimaan bu ñépp sopp bu ñëpp nangu ndax ki ñu demee ba mag ñi jël la comme ilimaan ci gox gëm nañ ne am na lu ñu gis ci yow ba tax nañu tànn la teg la ilimaan waaye léeg di nga gis sax eh, ku ñëpp yaakaar doomam mel na neen waaye ci baaxu yàlla da dem ci kër gis xale ba nañ ko yare ak nam fa nekkee waajuram te it mu soxla loo xam ne mooy yar beeg yëpp macha allah léeg nga xaw sax xaw a jaxasoo tuuti waaye nga gis loo xam ne dinga koy yéene sa njaboot ba tax dem fekk eh, xale boobu ne sa doom demal labati demal xooli ndax jikko ji ñu gis pour eh, suñ ko amee yàlla mën nañu ci suturaal mm-hmm. surtout nag ba nga bokkal nag daara ji mm-hmm. ñu gis ne yarul daara dafay feeñ ci lépp ndax dinañu rusa dem ci dansin nga fekk leen fa dinañu rusa nekk ci sabar nga fekk leen fa mm-hmm. wala seeni waajur bokk fekk leen ba loolu du seen jikko duñ sa taxaw duñ sa taxawaalu mm-hmm. ba tax nga yéene leen sa njaboot surtout góor di wax na daal eh, tey damay wax ne xale yi tey bu dee ñu ñuy dégg bokk nañu ci ñun ni ñu ñu yaree ba xamuñu woon luy dansin xamuñu woon luy sabar ba tax na ah, dañuy ku ñu nekkal nag dañ lay xool ca kaw te xam ne duñu gis loo ñu xeebee wala loo ragal te it eh, wax dëgg yàlla ci kàntanu yàlla kër goo dem nag dinañ la fa fonk lool dinañu am lu ñu la nawee ci yar ci jëfin ak melukaan ci waajur yi ni ñu ko tàggatalee ba ngay ndaw ba biñ lay teg ci loxo suñu góor gu tedd gi mu defit ci yow lu lu la kenn dul xeebe si Malick man damay wax ne émission bi man moom laa ko déjee mm-hmm. ndax moo def ci ñun ndax waajur mën nga ko rëcc sax daw dem defi wala ñu fekkale ci milieu bu dul loolu waaye soo nekkee ci milieu surtout ci wàllu daara ji pour nga dem fuñ lay xeebe du yomb mm-hmm. mu ko ci àdduna te ku la gis bëgg la boo màggetoon ba màgget a màgget sax te yoroo boroom kër ku la gis bëgg la ndax barkeem ak yarinam ak definam ci yow walaay ndooy ah. Ah, mm, taxaw kon su ma déggee kilifa baax na ci mhm. njaboot mhm. waaye njaboot tamit pour kilifa mën koo jëriñ mhm. foog mu déggal kilifa defe naa ne mag ñi yëpp leen sauvé ñu toog seeni kër ba seen borom kër fekk leen fa dañu amoon kilifa yu ñu doon déggal mais xale yi tey jii dañu seetlu ci jamono. Mhm. ne xale yi milieu yi ñuy fréquenté. Mhm. fa lañuy ñuy gisante. Mhm. te seen bëggante. duñ ko fésal ci biir kër gi. li ëpp dañuy joxante rendez-vous ci ay restaurant joxe ay nangam ba dox seeni mbir ba mu sotti. ñu soog see mag. loolu tamit jar nañu bàyyil ci xel xale yi ñu xam ne. labat dafa am nu ko lislaam digle. labat dafa war a am ni ko lislaam digle parce que ki la jëlagul soxna mhm. warul miin ci yow yenn yi mhm. warul egg ci yow yenn fenn fi mhm. kon loolu baax na nit ñi xam ko jigéen bu ci bëgg ëllëg boo duggee sa néegu sëy doo am luñ la dara luñ la luñ la sikkee doo am dara luñ lay teg doo indil say doom way wu ñaaw da ngay fexe ba toog fa nga war a toog déglu sa ndigalu wayjur kon ni ko suñu yaay teneen bi waxee wane na ne nit am kilifa da cee baax parce que gannaaw bi ko kilifa yaree jër ko ci wàllu aada dafa uti kilifa ci wàllu diine mu yar ko bu baax a baax tegal ko li lislaam wax mu teg ca tànkam ba tey mu doon royuwaay kon yaay teneng loolu tamit gannaaw bi nga demee ci wàllu labat bi ba pare parce que tamit ki nga xam ne labat na la ba toll ci war a waxtaan ak say parent foofu mhm. naka la euh, ki nga xam ne mooy bëgg sa doom war a comporter woo pour ñëw ci parents yi pour waxtaan ak ñoom pour ñu may ko seen doom mhm. lay doy ndax eh, eh, ndax jaar nañ ci macha allah mhm. eh, bi ñuy labat sunu waajur la ñu jëkk gëstu xam waajur bi mooy kan deuxième bi ñu lay seetlu xool ba xam ndax yow di nga génn kër di dem wala déedéet troisième bi mooy ñu sante ko yàlla moom bu lay seet si dalay fekk si biir kër gi beneen bi si des mooy boo koy gunge buy ñibbi boo koy gunge doo wàcce peron bi kon kooku du la ñemeñ ne la ñu dem tase ci restaurant wala ci dancing wala ci boîte de nuit ba eh, ndax fekk na yar nekk ci yow wala ñu waajal la bu góor du la yeb du la it ñàkkal fayda te du wax ci yow waxi ñàkk fayda loolu parent rek moo ko mën a def ci njaboot gi njaboot gi tamit bu ñu déggalee parent du ñu rëcc du ñu daw parce que dinañu xam ne parent bi lu baax la leen bëggal ba dina tax e, boo demee ba dugg ci néegu sëy ñu waajal la ba nga dem sëy ba dugg ci néegu sëy kenn du la fa xeeb beneen bi si des mooy boo demee ba nekk ci seen néegu sëy bu lay yàlla mayee njaboot kenn du xeeb sa njaboot kenn du xeeb sa njaboot kenn du ko teg baat bu ñaaw wala kii mooy yaayam jaar nañu fii walla daan nañ ko fekkee fii wala feneen eh, waajur nag loolu lañ ñu daan yebe loolu lañ ñu daan wax eh, suñu leen di yar ci lii mbaa di leen wax lii ngir ëllëg nga sawe sa njaboot sawe te njaboot bu amee woy ba ba muy màgget day ànd ak woy boobu ndax yaay du xeebu góor mën na nekk ci lu ko neex waaye surtout jigéen maam yi dañ la daan yar di wax ak yow di la fóotloo di la raxasloo di la baleloo toog di wax ak yow ak bàjjen yi sa yaay nag nangu ko ngay togg di yekk di raxas di bale di fóot ñuy wax ak yow ci biir loolu si foofu ngay fóotee di bale ko wax astafurlaa ñu lay wax ngay raxas ak togg si lañ daan waxtaan ak yow sa yaay de pourtant nii la meloon tubaar fakal la soo melee ni moom dinga mucc man sa bàjjen fii laa jaar wala man sa maam fii laa jaar ba tax tey lii may wax ak yow ma bëgg nga mel noonu ba bu ëllëgee foo toog ñu naw la kon damal dañ lay wax doom bu baax nii lay mel doom bu déggal waajur lii lay am doom bu nekk ci peggu ndeyam walla baayam borom kër fekk ko fa foo toog danañ la naw ndooy waaye boroom kër tey bi ñëw ci biir kër mhm. pare pour jël soxna mhm. parce que souvent tamit suñu jur yu góor yi ñoom ñoo am dañ ne doom bu góor doom bu jigéen mhm. bu mësul a sëy ay waajuram ñoo war ñoo ko war a may wala ñoo ko war a seet koo xam ne bàyyee la nañ ko wala ñu séddee ko ko ndigaayam wala jox ko ndigal pour mu maye waaye dañu seetlu ci biir kër yi ne yaay yu bëri mhm. bu seen jëkkër di jël décision yooyu parfois mhm. dañ ciy dugal seen kàddu mhm. donte ne bàyyi war naa concerté ak ñoom ne leen kat sa doom am na ku koy bëgg am na ñu ko euh, war nañ koo maye mais est-ce que yaay ji bàyyi ja war naa mën a jël pour ne day maye doomam yaay ji taxaw contre ne ko sama doom doo est-ce que yéen seen jamono loolu daan naa euh, déedéet loolu moom sama yaay ñeme ñu ko woon nag ñe bokk ci jamono jooju eh, ki la daan bëgg sa papa sax la war a gën a miin ka sa yaay sa sa papa moo koy seetlu moom surtout góor ni may wax jigéen day seetlu di wax ak doomam waaye góor tamit bu sa njaboot tu nit di ko labat yow yaay fexe ba xëcc kooku ci sa bopp di wax ak moom di ko seetlu di xam ndax kii su téye sa njaboot dina ko teg ci yoon wala déedéet dina ko téye téye bi nga bëgg wala dina def diine ci moom ah ñun de sunu waajur ku góor ki day nekk sa xaritam bokk pour moom bëgg xam li mu war a xam ci moom wala kii mën nañ ko may jabar wala déedéet war na mën a yor sanu njaboot wala déedéet ndax waajur yi si xooluñu woon alal e, da ngay gis koo xam ne ñeent ak taransu kese lañ ko daan mayee soo waxee mu ne ngir sëy ba barkeel fexe ba doomam tamit du xeebu te it du xeeb liñ ko indil lu mu tuuti tuuti dañ koy may soxna waaye dina dinañu jëf def loo xam ne yow danga leen fonk ba di nga doo néega teg ci njaboot boobu lu day ni bantu bale ndax nañ la ko joxe ndax nañ la ko joxee la nga fa fekk ak it lañ la sasul dara mm-hmm. soo gisee waajur di dugg li ci ëpp ci njaboot buy sëy am am ba wala it fexe di wax ak doomam noonu bul nangu lii dañ la war a defal lii ndax sa ay moroom fii lañ leen jaaralee am nañu lii am nañu lii sa papa nag kii mu la nar a jox nar a def yu dul noonu bul ko nangu wala man duma ko nangu ndax dama ami mbokk ci loolu sax seeti woon nañu suñu ñaari yaay mhm. suñu yaay Adja Aïssa euh, Sow mhm. jugee umra bu yàggul suñu rakk Adama jóol yóbbu woon ko ak magam yëpp ñu koy nuyu de passage mhm. ak suñu yaay may mën a jaay sa mhm. Marème Ndiaye sa rue cinq mhm. ñu dem régi seeti élément yooyu déglu leen ba pare soog a dellu sa si waxtaan bi ah, d'accord asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ñaan ci yàlla émission bi yàlla na ko yàlla jubal yal na ko yàlla barkeel yal na yàlla jàppale ñu itam bu ñu mën cee wax loo xam ne lii ah nit mën na ko dégg ci su suñu xam-xam toll ndax ñun ba ñuy sëy meluñu ne xale yi léegi da nga daan toog rek sa waajur ñëw ne la kat ngoon dama lay maye wala suba dama lay may te danga cay d'accord ba ñuy sëy ñun alal taxuñu woon a sëy suñu waajur laaju ñu woon alal amuñu woon téeméeri junne amuñu woon million amuñu woon i oto amuñu woon i kër waaye dañu fi tegoon ngir yàlla ak yonent ba ak ki ñuy dénk ñu am yaakaar ci ay waajuram ci lu baax ba ñu muuree itam ñuy ñëw ci suñu néegi sëy yi suñu yaay yi dañu yeb ni ngeen toogee woon ci kër gi ci jàmm ak salaam téye ko mag ñi bu ngeen demee sa goro na nekk sa xarit sa pàppi jëkkër bu mu tilim bu mu xiif sa goro bu mu tilim bu mu xiif boo xëyee kër gi yow yaa koy yore amoo jànq amoo dara yow yaay rooti boobu robinet yi melu ne ne gëni yaay root yaay bale yaay fóot yaay paase yaay def lépp waaye booba it diñ ko def ci xol bu sedd ndax say kilifa yëpp nañ la ba pare yàlla defal ñu jàmm itam ñi ñu joxoon téye nañ téye bu rafet ma suñoo ndaw yenu ndabal fay man de fii ba ma fi duggee ba néega ni masumaa yabal ndabal fay masu masumaa xuloog sama borom kër yi tam ba kenn ñëw àtte ñu loolu yàlla dimbalee woon na ma ko ngir yàlla rek ak sama yaay ak samay waajur ñëw di ma yedd toogeel nii waxeel nii defeel nii xale nag bu bëggee baax day dégg ndigalu mag ndax mag li muy xam xale xamu ko xale day yéeg ca kaw du gis dara waaye mag day toog ci suuf xale yi léegi nag bëgguñu ko leen yedd koo ci yedd mu ne yaay diw dafa waa waane yaay diw dafa finiste te fekk lu baax rek nga leen bëggaloon àddina bi léegi moom moo jaxasoo ñun la xamoon bu njëkk ak léegi xale da daan fóotal mag paaseel mag daw yóbbul ko xale da daan defal mag lu ne mag daaw am ndox nga dem rootal ko yóbbul ko mu bëgg a dem marché amul jot jox la ne la demal ma marché nga demal marché ñoo jox ko daan na am sax mag ñoo xam ne ci ñi nga dëkkal ku ci yaramam xaw a sawara di sax mu woo la ni la toggal ma nga toggal ko ñun loolu la xamoon waaye xale yi léegi xamuñu loolu sëy bi daal moom sëyu alal lañ ko def sëyu samedi ak dimanche la sëy bi bu amee semaine sax bari na ndax alal jee tax ñun nag sëyewuñu woon noonu suñu yaay yi ñoo ñu daan jàppale fa ñu nekkoon ñàkkuñu dara waaye léeg-léeg sa yaay ñëw seet si la indi dara ni la am toogal jàppal sëy sëy mu ñëlal sa jëkkër lu mu am na la doy fum la la yemloo nga yem fa kum la àndaloo nga ànd ak moom lu mu la wax loo nga wax ko ñun loolu lañu suñu yaay yi daan digal terewul nag suñu goro yeeg suñu jëkkër yi yoroon nañ ñu waaye suñu yaay yi itam ñu ngi doon ñëw te it bañ suñu yaay yi bañ ñu fe bàyyee daaw ñu def suba ñu ñëw ngoon ñëw tàkku tàkkusaan ñu ñëw daan nga toog weer doo sa yaay ba ñaari weer sa yaay du fa ñëw ndax nee na bëgguma fay baggante sax ëllëg a biir dara xew fa ñu ne yaay jee fi ñëwoon kon xam nga loolu yëpp ci yeddeel la buñ la gisee ni la ndax yaa ngi góorgóorlu nga ne waaw ah na nga góorgóorlu de bu ma fa teg gàcce de nga ne waaw ñun suñu yaay yi loolu la ñu doon yabe lu nu am mu néew mu bari du ñu xam nañ ni suñu jëkkër yaa ñuy defal waaye du tere bu ñuy ñëwee bu ñuy dem mboq la dara ni la jàppal booy dem marché dolleel li toggal ba mu doy taajal te woote ñam boo koy taaj da koy taaje xol bu rafet danga koy taaje woote waaye ñëw ni déj ndab li rek ñëw leen ñu añ taxul nit ñëw dangay lal teg say bang teg say ndoxum raxasu teg say yëpp teg say kuddu ku ne nga dem ci moom acca añ bi pare ni ñëw leen dem ci keneen añ bi pare ni ñëw leen waaye lal rek ni ko déj ca biir daal ne leen ñu añ ku ñëw sa yoon ku ñëwul sa yoon. loolu baaxul ne li sabab loolu ah. bokk ni ci beru bi leen. waaw sa jëkkër yaak sa jëkkër rek nga jóge ci kër gu mag gi. waaw ah. tey xale bu ndaw yéen ñaar kese ngeen beru ji est ah. loolu sababul tey sëy yëpp commencé di teel a wàcc. ndax xale yi léegi appartement la ñu bëgg. Mhm. koo ci takk indi ko seen kër bu fa amee at bari na. Mhm. mu ngi ci sa nopp utal appartement du ma dëkk say gor sama sa yaay duma dëkk ak sa njëkke du ma dëkk ak say nijaay duma dëkk ak say rakk fexe laa gund xataal ba nga dem uti appartement boo ko mënee boo ko mënul yëpp di nga ko débrouiller xam nga loolu tam baaxul barke bi daal mooy kër yu cosaan yu mag yi daal mooy barke barke mooy kër yu cosaan yu mag yi ndax mag ñi dañ la daan woo di la yedd boo juumee sax ba def dara du sa goro sax mun na la bañ a woo waaye kenn ca kër gaa lay woo diw nga ne ah man la dama lay ni nga daal di ñëw defe ne yónnente la mu ne la li nga def tey kat bul ko defati juum nga tey defal lii defal lii defal lii ah nga daal di topp ca loola te boo ko toppee danga cay daal di gis ndigal boo ca toppee danga cay daal di gis ngën-ngën. ñu wax nag ci mbiru àddina ak xale yeeg seen dund léegi ak ñun suñu dundu démb dañu xaw a soriate ndax xale danga koy jàngal liggéey ci kër sa kër ndey. nga koy jàngale liggéey ak nooy waxe ak nooy tontoo ak nooy waxeek say kilifa boo amee loolu ba pare nag léegi moom kër gu mu dem rek bu ko yàlla dimbalee dana fa mën nekk ndox foo bàyyee sa baay sa baay nga fay fekkaat foo bàyyee sa ndey sa ndey nga fay fekkaat foo bàyyi sa càmmiñ sa càmmiñ nga fay fekkaat kon nag ni nga mën a euh, muñale sa waa kër yi nga dëkkal boo jógee sëy it mën nga fa muñal ña nga fekk sëy nag neexul dafa metti ndax loo dégg xam ni dañ la naan muñal lu waay di muñ rekk neexul waaye nag yàlla ku mu bëggul fay du la sonnaloo tey du la muñ ak it xale yi léegi sunu jamono ak seen jamono bokkul ndax xale yi doylootuñu te nit noo mënti daf nga doylu ndax alal ku ko téye nit bu alal jeexee nga bàyyi ko waaye boo téyee yàlla yàlla du jeex seen nag ñoom yéen ñaar ñëpp da ngeen di ànd ànd ak yàlla yàlla may leen ci njaboot goo xam ni boo liggéey dana leen jàppale ñaareel ba boo demee ci sa kër jëkkër tubaari kàllaa nga dem fekk fa sa yaayu jëkkër ah ñun de daanañu bala ngay togg nga ni yaay lu may togg bu sa yaayu jëkkër bëggul kaani bul togg kaani bu bëggul laneen bu ko togg sa papa jëkkër it nga di ko toppatoo xool loo xam ni moom la gën a bëgg ci lekk tubaarkàlla nga di ko togg di wax ak moom di naxanteeg moom bu la woowee nga wuyu bu la sa jëkkër woowee it nga wuyu même sa jëkkër bu la woowee papaam woo la ne ko xaaral sa papaama woo nga dem wuy ko papa la la ba jàmm la muy la nangam ak nangam laa bëgg nga dem toppatool ko loolu bu jëkkoon de noonu la ñuy see ah kon Adja Tene ñoo déggandoo suñu yaay yooyu ku jëkk gi di maire Aïcha Sow mm-hmm. ajaratu Aïcha Sow mm-hmm. jóge umra bu yàggul wax dëgg yàlla mm-hmm. nangul ñu interview yi wax dëgg yàlla ku leen dégg xam ne li ñu dund la ñuy wax te nettali moom ci làmmiñu boroom la dàqe mm-hmm. te ki fekkee tamit mu mën a seede mm-hmm. kon dañ koy ñaanal kaala gi yàlla na rab amiin mook suñu yaay Marème Ndiaye moom it di mm-hmm. maire bu baax ñoom ñaar ñëpp ñuy sob di taalibe seexal xalifa radiyallahu taala doon ñu baax ñoo xam ne royuwaan lañ ca pénc mañ dëkk kon tey li ñu wax ñëpp ko déggandoo waaye bala ñoo commencé dañuy dugal numéro bi rek pour koo xam ne yaa ngi suivre te bëgg a woote mhm. muy 88 628 66 92 88 628 66 92 képp koo xam ne bëgg nga participer ci émission bi tamit mhm. mën nga dugg mhm. defe naa ñoo déggandoo liñ suñu yaay wax ni ñu expliqué ñun ñu ngi toll woon ci ki nga xam ne baay bi waaja a mhm. ba waxanteeg woy jur bi mhm. bu jigéen bi mhm. lan moo ci warugaru woy jur bu jigéen bi defe naa am na looñ ci indi waaye tey gannaaw ba ñu demee maye ba pare dégg nañ li nga xam ne moom la suñu yaay yi wax mooy ki nga xam ne dugg na ci néegu sëyam ak bi mu fa laata dugg ne mhm. xamal nañ ñu ne ñoom dañ daan waajal seen doom mhm. comme ni nga ko waxee mhm. jëkk ñuy dem ci néegu sëy na nga war a waxee ak sa borom kër fañ la fa lañ la koy jàngale mooy li nga wax sànq ci ci fóot mi booy fóot ñu ngi lay jàngal ni nga war a defee booy togg ñu ngi lay jàngal ne ñu expliquer ne ñoom it ci biir kàddu jamono boobu la ñuy jox xale bi mm-hmm. leçon yi nga xam ne moom la war a dundee kër di këram mm-hmm. maanaam ne booy wax ak sa borom kër mm-hmm. tàmbale ko sa sa sa sa sa mag gi ca kër gi nga jàppee ko comme borom kër sa baay ba nga bàyyi sa kër nga bàyyi jàppee ko comme goro bu góor sa ndey sa ndey ja nga bàyyi sa kër nga jàppee ko comme goro bu jigéen defe naa boo tàmbalee foofu mhm. ñu yar la ci ba kaddu yu doo ko dépassé mhm, mhm, ëllëg boo demee ci néegu sëy kàddu ya dana la yomb pour nga dund ak sa borom kër mu expliquer tamit ne xale yi li tax seen dund di metti mooy dañuy yab seen sas seen jëkkër loo xam ne attanuñ ko jëkkër ji la takk nekk ak ñaari woyu juróom ku ne xam na Sénégal soldu ne doyu fi nga bëgg mu dundal la dundal ay woy juróom nga bëgg ko ci dollil fayum lu yaas kon ku bëgg sëy mhm. da ngay fexe ba seet sa jëkkër la mu am nga mhm. dund seeg moom mhm. te jàppale ko ci ay woy juróom wallaay ndeysaan defe naa ñoo ci déggandoo lool suñu yaay wax dama lay bàyyi nga indi ci yow sa di ci dégg ak loo ciy dolli ñu soog a dugg ci troisième point macha allah Ndoye ndax eh, xaw ma woon la ñuy wax waaye ci kàntanu yàlla bi ma koy wax ci wàllu fóot booy fóot ñuy wax ak yow booy raxas ñuy wax ak yow booy taal ñuy wax ak yow fexe nga teel di dem marché mhm. eh, sept heures et demi huit heures daana fekk yow xale bi doyee doo am sax xëy na ci douze ans ngay toll ndax bu jëkk ñi si ëpp mboog ñun jànguñu français alxuraan daara lañu ñu solo papa dugal mhm. soo waxee mu ne jigéen na alxuraan jiitu ci moom mhm. bu alxuraan jiitoo ci moom fu mu nekk fu mu dem dina fa ne te luñ ko niñ ko yaree dina ko nangu ba nga xam ne man boog jànguma français loo wax dinaa ko dégg nag waaye jànguma ko waaye ni ma la ko waxee douze ans laa am ci banc laa doon taxaw di Russie te sama maam moo ma ko doon def loolu mm. soo waxee mu ne dañu war a toj sa xol yaay balaa ñoo salaatu fajar daana fekk nga sumb fóot ci kër gi yow mi nekk xale di fóot yow ak sa tànta bu fa nekk wala sa doomu bàjjan wala daal ñu fexe pour nga jàng fóot fóot bu set nag danga daan fóot ba nga xam ne dara desul lu dul bàcc mbaa boo bàccee ba weer doon te duñ ci gis benn tâche dañ koy ajiwaat jalaat ko ci suuf pour toj sa xol jëlaat ko ci suuf ne la ay was sumbaatal tuural sumba yi ñu sumbat nga tuur sumbaat sa ñaari sumb ak ñaari bàcc te fekk fóotaan nga fóotoon nga ba pare xayu danga daan xayu di tuur doo xayoon xayoondoo lépp di def nii rek ci paan da xayu di tuur di xayu di tuur ba yëre yëpp jeex doo ko teg ci suuf dañ lay utal ndab boo xam ne soo xayoo fa nga koy teg yu weex yi à part yu ñuul yi à part su ñeme loo ne hu mbaa nga ne yaay est-ce que lii li tax setu ñeme loo ko mbéj lañ lay def pour toj sa xol ba foo dem man ko ba suñu joonu yàlla tey xëy na man boog maay fotul suma bopp ndax la ma ca bëgg hmm. ndax xale yi xëy na tamit ah, tollu nag fa ñu tollu woon beneen bi se mooy marché boo amee douze ans ba quinze ans da ngay dem marché di dugg ñu lay yu soo demee ba ñëw ñu xaat la demaatal nga ñëwaat ñu ne la demaatal ba neuf di jot dañ lay di jox par tuuti tuuti ngay dem di jëndi pour rek jaabante ba ngay jaabante sa xol toj nga nangu mbaa ñu wax nga ne ah léegi wax ma li may jënd yëpp su ko defee pour jàngal la ba suñ la waxee la nga lañ la wax danga xam lii lan la pour nga mën ko dem jënd ko normal indi waañ bi dañ lay surveiller ci raxas jën raxas yu sew lépp boo defee pare ñu ne la déedee setul te de wallaay day set wecc waaye dañ lay dañuy toj soxol xol pour nga tàmm loolu mën ko xam ko ñuy fóot di togg di raxas ndab di bale man de dama daan bale di lay asalaamaaleykum aleykum salaam wa rahmatullah koo kan la ak fooy wootee mais yaxa kolobaan ay macha allah ah, ñu ngi lay nuyu bismillah dafa mel ni dafa dem allo allo oui maman ñu ngi lay ah, merci beaucoup wallaay Ndiol. di la dellu ziar bu baax. Mhm. dëgg la. xaritu xaritu ñëpp la ndeysaan. dëgg la eh, te li ngeen di thème bi ngeen di indi thème bu am solo ngi noonu. Mm. thème bu jar a ngi noonu. dëgg la. waral bu yàgg ba bu yàgg ba. su mm-hmm. li ma fekk bu yàgg ba. Mm-hmm. da nga daan toog ñu ne la diw soo buggee jabar. wala mm. nga ñu ne bu Mhm. ngay wax demal seeti doomu kër diw dama dugg kër diw nga seet doomu diw. wallaay ndeysaan. soo demee ba nga seet mu neex la. Mhm. boo ñëwee da ngay waxtaan ak say say kilifa. ñoom yoon yebal ay kil dem ñu ñaani la. wallaay ndeysaan. te day fekk jabar jooju la yebal. te mhm. doo am benn doom boo xam ne. boo xam ne doo ci am lu la neex. wallaay ndeysaan. suñ la ko mayee da dañ ci am cër bu barke parce que xam nga lu tax kooku dañ ko yar ci fuñ ko war a yaree. wallaay ndeysaan. wante gis na lii loolu yëpp ñoom dégg nañ ko ndax internet bi internet. dëgg la <laughs> waaye internet yëpp am na loo xam ne mun naa ne sax comme bu yàgg ba ñëwaat na parce que daayira bi. yow su toog ci daayira ñu yar la suñ la waree yaree. waaw ñu xam la xam sa jikko. wallaay ah ñu yebal la kër diw. gis nga soo demee. résultat bu ñuy wax moom dinga ko am. parce que bu fekkee ne yow da ngay jëlee jabar ci internet. Mhm. wala sooy say nga ne sa sa sa borom kër mhm. mat a boro. dama dama wutal ma am mhm. wala so décidé ram sa goro ñëw di la yëg da nga naan mère bi dafa seytaane dafa bëgg a teg sama sëy. gis nga loolu yëpp loolu yëpp. te yow wóor la ne yow ñëpp xam nañ ne yow. lu baax la ciy jublu. appartement toi et moi. dañu mhm. ko configurer samedi ak dimanche. Mhm. yow soo sëy boo soo sëyee boobu. Mhm. lu ñuy wax naan doo am sang wala wala kii nu mu tudd. nitu yàlla parce que nee nañu nitu yàlla ba léegi jigéen ñi mun nañ ko jur ñu ngi ci biir jigéen. wallaay ndeysaan mais soo tax. alal taxulaa sëy. xaalis taxulaa sëy. wallaay ndeysaan. day sëy te yàlla tax wallaay ndeysaan te nag góor gi jàngal la ko yërmande raxma mhm. ak sax mhm. yërmande voilà mhm. de soo bu fekkee ne loolu moo moo la tax nga yóbbu la ci sa kër loolu moo la ta seyloo da nga am ne bëgg bëgg na la day de pour nga sa sa sa jëkkër parce que on dit dañu wax ne ñu ne yow ajjana jigéen mu ngi ci xam ma lan fii fiiwu jëkkëram te loolu boo ko xamee yëpp te jàngal nañ la. wax dëgg mhm. na am loo xam ne du addina du la ko jaral. déedéet. bu baax a baax wax dëgg na yàlla di kontaan nag di kontaan lool di kontaan. jërëjëf ñu ngi kontaan bu baax a baax. moom am na am solo boo xam ne. Mhm. dina ko rase nag waaye yow mi kii eh, sàngal yi. Mhm. ngay doy. ak fekk fii ci man nee na su jot matt la parce que am na loo xam ne yow yaa ko xamal. jërëjëf yaa ko yaa kii daal naka lañ ko waxee. Mhm. nee na suñu màtt bi noonu <laughs> ndeysaan. nuyul mbokk bu baax. <laughs> jërëjëf mhm, jërëjëf. ah maire Tene dégg nga sa mbokk yi. walaay ndeysaan. muy maire. Mhm. maire kii ndeysaan. yaa yàq yaa yàq bu Colobane. ñu ngi koy ziar bu baax a baax. di rafetlu contribution bi. defe naa li mu wax mooy liñ fi indi rek. wallaay ndeysaan mooy nangu gi. mag ñi mhm, daan nangu démb. Mhm. ba bu leen seen jur tànnalee ñu nangu ko. Mhm. ba suy sëy ci. la mu daan jur. ak xale yi tey appartement yi ñu taamu. ak di utal seen bopp li leen jural. mais tamit euh, soxna si. biir néegu sëy yi tamit gannaaw ba waajur mayee ba nga war a dugg ci sëy. Euh, tey jii buñ leen daan muur pour ngeen sëy yéen. muur boobu ñu leen di muur ngeen toog lan lañ leen daan yebe waaw eh, macha allah ndax yaay yi romb li ñu wax rek lañ ñu daan yebe mhm. mooy premièrement maanul te go te gore maanul te gore mhm. soo maanoo yàlla mën na la suturaal ci sa biir sëy mhm. soo goree lépp loo lu nekk sa kanam di nga góor ci kawam maanu waaw ñu jël ki ci ligne bi nee na am na ku nekk ci ligne bi ci ligne bi bismillah salaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullah kookan la waa Adja Teneng uh-huh. Marème Sarr Aram Seck mère Aram bismillah mhm, Seck <laughs> walaay Seck ñu ngi lay dégg mère Aram ñu ngi ziar bu baax Uh-huh. Ah. waaw ko fa mel ni dafa dem dina dellu si waat walaay allah kon gane bi ñu leen daan waral lan lañ leen daan wax liñ lay jëkk wax mm-hmm. mooy eh, gore ak mm-hmm. gore ak maanu mm-hmm. maanul te gore maanu nag mooy muñ muñ nangu lu la kenn warul a xamal mooy pee loolu lañ lay jëkk a yabe dañ la wax ne man yaay wala man baay bu ma la xamal lu la metti ci sa biir néegu sëy ndax njuréel dafa diis te day sot waajur day sot ba nga xam ne bu lu la loo defanteeg sa jëkkër bu ko nit xam bu ma ko xam bu ko keneen xam na nga gore ba jàmm ji commencé ci yow ndax dara mënul continuer jàmm ak neex rek ndax day neex tey ëllëg mu metti Eh, day eh, rafet tey suba mu ñaaw waaye bu rafetee muñ loo ko yàlla nangu bu ñaawee wala mu métti it muñ loo ko yàlla nga nangu. xam ne am na ku nekkaat ci ligne bi ci bismillah ki ci ligne bi bismillah bismillah salaamaaleykum dafa mel ni dem nañu continuer ah. waaw ba nga xam ne ak lu mu mënti doon bu neexee bu neexee mhm. bu kon waa kii ci ligne bi ñëwaat na ñu déglu ko salaamaaleykum. waaleykum salaam. waaw ku nekk si ligne bi ak fooy woote. man la soxna Seynabou Gueye. soxna Seynabou Gueye suñu sœur. waaw maa ngi woote Medina. waay suñu sœur bu baax soxna Seyna bismillah. ñu ngi leen di ziar bu baax a baax. ñu ngi lay dellu ziar leen bu baax a baax a baax. Mm-hmm. di di ziar soxna Mariam bu baax a baax a baax. waaw ñu ngi lay dellu sama doomu ndey sama xarit. Mm-hmm. maa ngi koy ziar bu baax a baax a baax di kontaan si émission bi bu baax. Mhm. émission yi moom dañ koy war di teg. Mhm. dañ war di teg delloo si xale yi. Mhm. ndax euh, baal leen ma rek ma xale yi. ndax euh, xale yi tey il faut nu gindi leen. dëgg la il faut nu gindi leen. ñu ko soxla te da nga waxee si commencement émission bi. dëgg la ah yar dafa baax ci xale. dëgg la am kilifa dafa baax ci xale waaw. xale boo amul kilifa amul yar mm-hmm. ah, fu mu dem rek du fa toog mm-hmm. fu mu dem du fa toog te ni koy waxee rek yaay yi mooy responsable yaay yi ndax yaay bu nekk war nga am noo yare sa doom mm-hmm. soo jëlee sa doom teg ko ci yoon teg ko sa wet xamal ko yow mi ngay doxale ci biir kër gi bu demee këram noonu la war a doxale bu demee kër jëkkëram fekk fa yaayu jëkkëram dafa war a comporté wax moom ni nekk comporté bu demee kër jëkkëram fekk fa pàpp jëkkëram mu def la même ndax yaay dina la xas dina la dóor dina la saaga nga koy nangu kon boo demee kër jëkkër mm-hmm. bu la yaay kër xasee dóor la mm-hmm. war nga koo nangu waaw kon loolu buñ ci góorgóorloo xale yi mm-hmm. dinañ leen yar jàngal leen biir kër ndax euh, sa yaay buy araw teg la si wetam di ko mën buy togg teg la ci wetam du ko mun di nga ko mën mm-hmm. ñun à l'âge de douze ans treize ans mm-hmm. man su ma toggee ñu ne man togguma ko sam papa du lekk loo xam ne man togguma ko kon loolu bu buñ ko defalee xale yi jàngal la ni ñuy fóotee ni ñuy yore kër mm-hmm. buñ demee seen kër seen xool dina toj jamono jooju nag ak jamono yi bokkul ñun suñu jamono yaay ak suñu jamono yi bokkul mais suñu jamono ñun ak jamono xale yi du ma ne bokkul même jamono la mais nit ñi noo koy soppi nit koy soppi ndax xale xale yi tey nee nañu ma la famille ñu ne leen luy la famille ñu ne moom mari mes enfants et moi <laughs> samay doom sama jëkkër man uh-huh. te loolu du famille ndax boo wéetee ak sa jëkkër say doom uh-huh. soo defee bêtise doo gis ku la ku la ku la jubbanti doo gis ku la jàppale doo gis kon waaye sëykat bi uh-huh. war na muñ muñal goroom waaye man dama ci dolli leneen tamit ne tey goro yi tamit war nañ jàppale xale yi muñal leen dëgg la ndax xale dinaa la bu defee bêtise tey. Mhm. wala nga wax mu tontu la tontu bu la naqari nga mhm. woo ko ci pet wax ak moom si njëkk ak teraanga. suba nga defaat ko amaana xale boobu bu dee xale bu baax la dina soppeeku. Mhm. waaw ko. bu ko yarulee bu ñëwee nga jëm ci def sa àqulaay taala ba keroog ba ngay ba ngay bàyyi. waaw buñ ko deful tey xale yi duñ leen jàppale ndax divorce bi divorce yi bëri na. te dafa am phénomène bu indi divorce yooyu phénomène bu bees bu indi divorce yooyu. ndax ñun dañ daan sëy ñooñu dund ñeent ak trans ñoo doon sëy mhm. xale tey dafa toog see yaay dama dama yàq sama doom sama yàq kon tey moom ay millions war naa di ñaan ci sa doom boo amul million doo am jabar xale yu góor yi tey tiit nañu jaaxle nañu seen yaay yi tiit nañu jaaxle nañu ndax lépp lekk lu ay millionnaire mhm. kon tey bu fekkee na nga gis benn xale bu góor boo xam ne xale yu góor yi jaral na leen sax tricher mhm. at di yëre loué oto jaay la maanaam dem de xaalis deux millions. Mhm. nga ne waajaangoo mhm. nga sëyi fekkoo ko fa. da ngay mhm. parce que la nga yaakaaroon nekku fa. kon nan leen sëyi te ngir yàlla. yàlla rek a tax. nan dugal suñu doom ci sëy te yàlla rek a tax. jërëjëf koo xam ne am na diine. mën na yor sa doom mu yoral la doom yor bu rafet. ndax dama ne may gu dëkk may gu dëkk moo ko gën. kon nag soppi ko war na si yaay yi mm-hmm. Mm-hmm. war xale yi man mm-hmm. leen góorgóorlu bu baax jàppale xale yi lay jërëjëf maanaam ma lay ma lay gërëm di la sant Sarr yàlla na jëm kanam ndax mérité nga lu raw lii mérité nga lu na jëm kanam macha allah macha allah yàlla na yàlla def jàmm amiin maa ngi siyaaraat bu baax a baax jërëjëf yooyu merci jërëjëf jërëjëf Ah, alhamdulilah alhamdulilah ma mhm. contribution bi rafet na trop ñu jox sax da tene ak laay ndax suma suma sëy la suma yaay ak yaay ma bokk ndey ak baay ah, macha allah eh, li muy wax ne suma xarit la dañuy mm. màttante àndaat léegi parce que dañu bokk nit ñu yare macha allah moom li nga wax yëpp mu dëggal ko à l'âge de douze ans ñu loo xam ne wajuram bëggatul lekk dara walaay ndeysaan loolu ku ñu yarul mënoo ko walaay ñu daan bokkandoo sax di sangu mu nekk ca kër ga <laughs> senu kër hmm. waaye alhamdulilah dafa mel ni li ma doon wax yëpp ñoom wax nañ ko ko dugg waaye alhamdulilah ndax ñun ñoo war a muñ fi ñu toll tax ni loolu laa toll woon ci ndax yeb bi ah. hmm. ndax ak fóot sax li maa koy faral di defal sama bopp hmm. ndax lan xam naa ne mënatuñ ko ten eh, yar ya woon ak léegi dootul benn ah. beneen bi si des ku si ko seen waajur sax da nga leen di tooñ mhm. parce que àndandoo moo leen di gën a yàq mhm. wala moo leen di yàqal mhm. ñun bañ ci tolloo sama papa da daan wax naan wala sama yaay utal xaritu mag soo demee fa ngay sëy surtout sama benn bàjjen bu nekkoon foofu ñuy wax eh, bàjjen Ndey Géy eh, njabootam ak Abdoulaye Matar Diop ñoo bokk benn baay Eh, sama cousine papa dafa ma daan wax na bul ut xarit sa morom soo demee fa ngay ah, sëy ca koñ ba am keneen ku nekk ci ligne bi ah, ñu ñu nuyu ki ci ligne bi ñu ngi lay nuyu mm-hmm. allo salaamaaleykum waaleykum salaam noo tudd ak fooy woote maa ngi tudd Sëlëng dëkk Tëngéej ah, eh, sama turandoo ko de turandoom lay woo <laughs> ko yar <laughs> bismillah macha allah maa ngi lay nuyu. wallaay Dieng ñu ngi lay fay. maa ngi lay sant di la gërëm bu baax. wallaay Dieng jërëjëf. ndeysaan. yàlla yàlla dooli sa sutura dooli laa taxaw. amiin incha allah Dieng. nda ku baax la. ndeysaan. ku yar. wallaay def ci man yar bu baax. wallaay Dieng. toj sama xol. Mhm. jàngal ma liggéey. jàngal ma muñ. wallaay ndeysaan. jàngal ma baax. wallaay Dieng. jàngal ma ma xam fi may taxaw xam li may wax. wallaay ndeysaan Dieng. ba ma nekkee xale. Mm-hmm. dama yaakaaroon ne daf may soxoraatu. Mm-hmm. ndekete booba dafa doon def yar bu baax ci man. Mm-hmm. waaye bi ma laata kaa xam bi ma duggee ci sama néegu sëy laa ko xam. mu def ci man lu jafe nag ci xale yi tey. ndax lu lu sama jëkkër am ak lu mu lu mu ñàkk yëpp kenn xamalu ma dara lu mu am wallaay ndeysaan macha allah wallaay ndeysaan wallaay sama turandoo la macha allah papam ak eh, sama yaay ak yaay papam a bokk ndey ak baay tudde nañ ma ko te yëguma ko sax ci baaxu yàlla yi ci barke waajur ak sunu góor gu tedd gi mm-hmm. am naa juróom-ñaari turandoo mhm. waaye si ëpp dañ ma ko bett waaye alhamdulilah biñ ma koy indil demagul sax nekkagul sax première mhm. waaye al dem na ba bi muy am 12 ans mi ngi togg ganaar ah, seede na ko wallaahi mhm. yàlla xam na ko eh, boobu ba léegi daf baj daf may ñaanal rek waaye alhamdulilahi rabil alamin yëpp waajur la nag ak sunu kilifa gu tedd gi Serigne Moustapha si Malick damay wax ne lépp yi gannaaw yàlla tabaaraka wa taala moom la moom la si man damay wax ne bàyyi nañ kook yàlla bàyyi naa la yàlla te xam naa ne ñëpp bàyyi nañ la ak yàlla yàlla na la yàlla fayal boppam si Malick yàlla rek lay fay nit du ko fay man mooy sama ndey mooy suma baay <laughs> mooy sama sëriñ mooy samay yaakaaru àdduna ak alaaxira si Malick li nga def ci ñun na la ko yàlla fay ndax ba may laata sëy am fukki at ak juróom-ñett wala juróom-ñaar lañ ma sama papa teg ci loxoom waaye ci moom yarem ci ñun mm-hmm. doonte du ku jigéen waaye def na lu raw lu jigéen di def ci doom mm-hmm. ba fuñu dem nekk fa fu toog am fandam lu ñu liggéey kenn di ko werante waxoon na ne mustaxsit bu ciy jël mu mustaxsida mhm. na xam ne sama sœur la jël wallaahi ndeysaan góor ñi mën a gën a teral jigéen ñi gën a mhm. jàppale jigéen ñi parce que néegu sëy dafa mhm. metti parce que ñu ngi wax ci wàllu sëy di wax niñ daan yebee jigéen ñi Mm. nga wax seen waajur yi lañ leen daan waxal ci muñ pour mm-hmm. xool lu sa jëkkër am ak lu mu mënul maandu beeg yaru bi moom mu ñëw doon mm-hmm. bàyyi ci ñun mm-hmm. gën koo feddali gën ñu cee ñaax waaye tamit dafa bëri loo xam ne dina sonal nit ci biir kër yi tamit njëkk yi dañ ciy bokk njëkk yi tamit parfois ci biir kër yi ñoom dañu war a xam ne dañoo war a sëy te ki war a sëyi ëllëg xam ne loo teg kii ëllëg sa biir mm-hmm. néegu sëy war na na ko teg mm-hmm. loolu njëkkee war na cee bàyyi xel wallaay ndeysaan parce que tamit lii suñu yaay ji mujjee génn meer ngëye wax mm-hmm. ne tamit dañu war a fexe ba yaay yi di jàppale tam goro yi ci biir kër gi parce que tamit xale buñ la ko joxee mu nekk ak sa doom doon xale boo ko jàppee ni sa doom bu jigéen bi ci kër gi mhm. nekkam ci biir kër gi dina boo jàppee loolu teg sa doom bu jigéen ci kër gi tam nga jàpp ne doomu jàmbur lañ jox sama doom mhm. kii moom sam moo ma war a gënal sax sa doom bi ci kër gi mais tamit parfois daf ki am goro yoo xam ne tamit mhm. wala njëkke yoo xam ne tamit ci biir kër gi dañuy tax ki sëy si ñam day metti waaye tam terewul rek lala la sa waajur waxoon tey bu la jur dooroon ci biir kër da ngay muñ bu dee góor bu dee ku ba sa pap mm-hmm. bu dee sa yaay da ngay muñ mm-hmm. bu dee sa sœur it moo la def dara da ngay muñ mm-hmm. te lu metti la ñuy muñ wallaay ndeysaan dañu al umu madrasa ah, yaay école la kon nag bu buñ nee école la école lu ne fa nga koy jàngi école dañ fa war a jàngale lu baax dañ fa war a def lu baax wallaay ndeysaan wallaay dëgg kon tey moom seen émission bi dafa am solo wallaay ndeysaan toll woon ci tey bañ lay muur lañ la doon yabee ci wàllu muñ ci wàllu teey ci wàllu nàngam Mhm, ak maanu ak maanu eh, eh, ndooy yàlla xam na ne donte nag waajur yeb nañu mhm. waaye ba ñuy nekkee ci daara ji mhm. te di jàng ci école pay Serigne Moustapha di ñu fa fekk boobu ay tout tànk lañu xale lañu waaye bu ñu fa daan fekk lim ñu jëkk jàngal mooy yaay su fi dem taala anhu na yàlla yokk leeram te tax ñu si barkeem yàlla barkeel ñu ci barke jigéen joojoog sunu maam asukan mhm. eh, du ma fàtte bat boobu mhm. da daan wax ne maam eh, su fi dem at at ba at lay gis maam Cheikh Tidiane te gàmmu lay doon boole koog na mu nekkee ca kër ga ah, ah, ñu dégg it ci anniversaire bi weesu mhm. bu maam Cheikh bi wax ndox ba mu daan rooti mm-hmm. ndëg ba ko jamoon mm-hmm. mu yenu paanu ndox di dox ak ndëg bi ma ndëg bi raw ci biir tànk bi mm-hmm. kon moom lañu bàyyi ak ndey daan wax ne muñ ak nangu te it dégg nañ ci ustaas bi ñuy wax ci moom muy ustaas eh, sàmba ak imam Moussa ba ñuy wax naan dofu kër ga mooy jën jël sangu kër mooy jur sangu kër bi te loolu waajur yi dañu si daan yebe mhm. daanu wax ne boo demee doonal dof beeg mbaam bi mhm. bu ëllëgee sa doom nekk gëléem mbaa fasu naaru góor ma tegal la ci dara bañ ko tergee keroog di ko julle mhm. sëriñ Abdou Aziz si al amin dafa seede lu am solo mu ne fa mu jëm ku mu gën mën na na faa fekk mën na ko faa fekk waaye gannaaw ku ko gën dootu ko fekki te loolu muy seede boo mm-hmm. xam ne mm-hmm. bu ko doom seede woon ci waajur mm-hmm. wala jëkkër ci boppam seede woon ko ci jabar sax mais Serigne Abdou Aziz ma nga xam ne moo nekkoon ci kër ga ak moom moo toog seedeel ko wallaay ndeysaan maa nga dëgg yàlla muy seede boo xam ne kooku rek Mm-hmm. buñ nee moo jër Cheikh Seydou Mouhamadul Moustapha radiyallahu taala mm-hmm. nafaxa na bi barakaatu mm-hmm. ñu war a sant yàlla wallaay parce que Seydou u Moustapha si xool fi jamono toll lépp lu nit di wax danaan nañu dem bootu ji ci gannaaw Seydou Mouhamadul Moustapha si waaye ka ko ka ka moo dul juum Serigne Cheikh a ne ko woon Moustapha lépp sa lépp sa loxo lay mujj. Mhm. ñu ngi koy ñaanal wér. amiin incha allah di ko ñaanal gudd fan. amiin si waaw ñu ngi signalé ne li ñu desee si waxtu bëriwul. xam naa ne boo eggalee foofu nga def sa cant yu mujjee ak sa dénkaane. wallaay incha allah waajal tëj wax dëgg yàlla man dama ne émission bi Serigne Moustapha moo ko moom. dëgg la ndax gannaaw yaay ak baay moo ñu yar ba pare wax ñu surtout waajuram bi daf ñu daan wax rek ci maam su fi dem. Mhm. ñu gis it bëggoon di ko roy te mënuñu ko ndax al amin di wax fa la ma fekk maa ngi toog maag soxna ki ne mm-hmm. bi muy wax ci yaay su fi dem ne mën na fa fekk ku ko gën waaye ku ko gën dootul amati ba àdduna di raaf si waaye alhamdulilah ba mu la amee mm-hmm. yow it nga yar ñu mm-hmm. tubaar fakkal la si Malick ma ne dem di may wax ne mooy sama yaay mooy sama baay mooy suma sëriñ mooy sunu yaakaaru àdduna ak ndax kilifa gilay teg ci dëgg mm-hmm. di waxte neexalu la ni ko sama turandoo waxee di la forcer ci lii moo war a ne mm-hmm. boo ci jaaree après dangay gis njëriñ bi mm-hmm. te it xale yi tey xëy na yaay yi xaw nañu yàq tuuti muy ci goro yi di ci yaay nga xam ne ñoo jur jigéen ñoo la dul nanguloo yenn yi mbaa di la tegloo antanul ba tax yow xëy na nga ragal man de dañ daan wax naan ne jigéen ci waañ lay wére soo amee njaboot xëy na balaa nga am 40 jours sax ñu ne la da nga war a aye te yow ak ay njëkke nga nangu ko beneen bi boo feebaree ñu ne la waa jigéen ci waañ lay wére nga daw nangu wax dëgg yàlla ndax waajura la ka daan sant di la wax ne muñal bu ma xam sa xiif bu ñu xam sa xiif bu ñu xamee sa xiif tey suba dinañu xam sa suur te su ñu xamee sa suur nga beew waajur da daa wax loolu doom mm-hmm. eh, ba nga xam ne mm-hmm. tubaar fakkaal la ci kër gu mag laa daan sëy wax dëgg yàlla émission bi xëy na xaw na gàtt tuuti waaye alhamdulilah ñi fi jaar uh-huh. ci li ñu wax mm. dolli ma surtout ñaari yaay yi nga xam ne jëkk nañu wax mère aram eggul sama cousine tamit noonu mm. sama turandoo Uh-huh. wallaay su amee ci fanweeri at juróom ca yam sant yàlla eh, ñu dolli rek santaat yàlla te di ñaanaat ñu amaat beneen bés incha allah ndooy eh, di nuyu ñëpp nag di sargal képp ku nekk ci daara ji mm. père mère falaa doon jëm dama eh, doon ragal <laughs> yi la ñuy jëkk a wax ndax waajur yu góor yi ñooy ñooy dimbali jigéen ñi mm. ñu ngi ñaanal képp kuy waajur bu mm. góor ci biir mm-hmm. di ñaanal képp kuy waajur bu jigéen mhm. surtout yaay yi nag mhm. wax dëgg yàlla ñun xale yu ndaw yi bu ñu dégloo yaay yi dinañu sey te duñu bëggee it te dinañu maanu mhm. ndax sanu waajur yi dañu demoon am ñaari yére kese di ko ja di ko jàllale di ko jaabante bokk wala nuñ koy waxee beneen bi si des nekk ci néeg ak juróomi doom te nit du xam lu leen metti wala lu ñu ñàkk ca biir néeg ba waajur gis nañu waajur ba tey yu bari yoo xam ne dañ doon nekk seeni doom yu bari ci nekk waaye doom yooyu ñooy gën presque ñi nga xam ne seeni waajur dañu yaatu woon jërëjëf wallaay dëgg alhamdulilah <laughs> ah ñu dëgg yàlla ñu ngi gërëm yaay yi di gërëm doom yi nuyu sama ay famille tamit dëgg la eh, am na sama rakk bu ma bàyyi ci kër ga mooy mm. Sophie mm. Safeetu mm. am na ku fi nekk jóge Côte d'Ivoire wax dëgg yàlla sunu mag la sunu yaay la sunu maam la ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen wax ne seen ki ngeen amul ku dul moom mu amul ku dul yéen mu ngi leen di nuyu te di leen sargal te di leen ko dijjee di ñaanal it sunu njaboot yàlla nañu nekk nag njabootu Serigne mu amiin incha allah soxna yi ñuy amit yàlla nañu nekk njabootu Serigne Moustapha pur dëgg-dëgg njaboot te maanu te it doylu te it di ñaan njaboot buñ ci am yal na barkeel ba fi leen di yaakaar rek fiñ leen di séentoo mu nekk te it ñu ngi leen di ñaan it ñu nangu ah. njaboot bu ci njaboot am soxna rek mhm. ci daara ji nag kaw ba suuf njaboot gu góor gi mhm. njaboot yu jigéen ñi yëpp ñu ngi ñaan ñu nangu te fexe déggoog soxna yi soxna yi fexe déggoog it ak borom kër yi waajur yi it niñ ko waxee rek ñuy muñal te it ñoom it ñu ñuy muñal te di ñu nangul ni ñu doon nangule sunuy goro eh. loolu la ñuy ñaan eh, ñu defal ñu ko ba ñu am ndam ci barke Serigne Moustapha ndax sunu ndam ci ci goro yi ak njaboot gi ndabu Serigne Moustapha la parce que dañ mooy goro bu mag bi mooy goro bu mag bi moom la ñu war a sargal moom la ñu war a fexe ba ndamam di yokk ci àdduna mhm. maa ngi koy wax démb xadara ne xale yi yéenay pour capitaine fexe leen ba raw njabootu Serigne Moustapha ñu naan njabootu capitaine yi ñoo raw njabootu Serigne Moustapha ci mbaax yiw maanu ak teggeel jërëjëf yàlla na nekk te ñu sëyante ci biir mbaa keneen ku leen jër fonk leen ngir xam ne capitaine raw na waajuram ndax waajur bu ne loolu la soxla dëgg moo waral moo waral ñu ne ko capitaine bi waaye yàlla na nekk général amiin ba ñëpp teg ko bët ñëpp yaakaar ko te it di ko doyloo amiin incha allah wax dëgg yàlla xaw na gàtt waaye gàtt na mais li duuf ci hmm. ndag bi yëpp xajaloo ci nuyu naa ñëpp xam naa sargal naa ñëpp incha allah suñu kàddu yu mujj dañ lay remercier rek hmm. di remercier waa télé bi xam naa di souhaiter joyeux anniversaire suñu doom maam Cheikh Ahmed Tidiane si ndoy hmm. suñu doom bi ñu tuddee maam Cheikh tey la anniversaire am ñu koy souhaiter bu baax joyeux anniversaire di nuyu tam madame Mbengue mu soxna Amadou Mbeng di ay Ba mm-hmm. Mm-hmm. sama soxna soos di ko wax na yow kesel Amadou du dugg di nuyu tam mm-hmm. imam Atif Diop bee passé participé woon na ci kii bi mu ñuy fàttali tam conférence bu ko imam Assane Fall tuddee le 16 le mars incha allah sa cëriñ di 23 angle 24 di ci woo imaam Mouhamadul Amin Diagne mi nga xam ne mooy imaamu jumaay cëriñ di njabootu Cheikh Seydou Mouhamadul Moustapha Sy wax dëgg yàlla kooku moom yal nañ ko yàlla fayal. amiin incha allah. ñuy nuyu ñëpp nag di nuyu waa mm, télé bi mm, di mm. nuyu sama soxna madame Ndoye Awa Fall. ak ñi ci kër ga ñëpp. wax dëgg yàlla di ko ñaanal wér a gudd fan. di ko ñaanal ñëpp waa grand place ba ñëpp di nuyu suñu yaay Aïcha Sow tamit encore eh, ci intervention bi mu def wax dëgg mhm. yàlla ñëpp kontaan nañ ci ak suñu mhm. yaay Marème Ndiaye mhm. suñu yaay get waroon na participer waaye yaram wee xaw a sutanti ak imam Babacar Diagne doomam ñoom ñëpp wax dëgg yàlla dañuy jàpp ci émission bi ak waa Mboro yëpp Oustaz loo Oustaz Ndiaye ñoom ñëpp ak waa Thiès suba nag dañ ma bàyyi la ca Thiès sama mm. doom bu may ngénte inchaallah wax dëgg yàlla muy soxna Nabou Diop mm-hmm. papam ak suñu pap maag papam suñu ñaay yaay bokk ndey ak baay mm-hmm. papam génn àdduna ñu jël ko bàyyi la mu mm-hmm. ca ëttu maam El Hadj mhm. wax dëgg yàlla ñuy ñu baax ñu war fa dem suba kon loolu la ñuy tëjee suñuy kàddu di mhm. ñaanal suñu yaay teneng mhm. di ñaanal amet doomam wax dëgg yàlla di suñu xarit di suñu lépp ñu ne dafa am kàddu muy sànniwaat rek ñu jox ko mu eh, tëj muy ak Idriss ak Alassane bi ma dendeel Alassane waaye di wax rek ne sama mbokk tamit waa Mbuur yëpp sama ñoo bokk benn maam papa yi la ak yaay yi doomu bàjjen lañu ak doomu nijaay mm-hmm. waaye dafa am koo xam ne man dama ko ci nopp mu tudd Pape Mama Combaan mm-hmm. di sama séddoo mm-hmm. di sama ko ko nee naa ko àdduna bi yëpp ba mu daj rek laa ci fóon rek ah xam nga macha allah seexu mooy sunu kilifa ci doomu bàjjen yeeg doomu nijaay yi jigéen ñëpp tamit di ko teg ci loxo Seynabou Guèye bi mm, pour mu séddale ko ñëpp waaye di wax ne daara ji tamit ñëpp nag góor jigéen mag ak ndaw nuyu naa leen sargal naa leen mi yaay yi awa ah, dime awa dime sama awa dime la wax dëgg yàlla ci faas awa dime dañuy wax nitu yàlla la nitu Serigne Cheikh la nitu maam Babacar la nitu Serigne Moustapha la nitu yàlla la ci biir daara ji di nuyu yaay uh-huh. aram eh, eh, yaa ndey Jóob yaa kam ak it fi ngom ñu teg ko daal ci seen loxo ñu joxal ma ko yaay yëpp. jërëjëf di nuyu ñëpp nag <laughs> ah. sargal ñëpp su ma ku ma limul rek ngeen jéggal ma. jërëjëf ndax na su ma di miin li dëgg la dina voilà dina lu bari dina ah. mën a gën a génn. Ah. su ma di juumee nag nañ ma baal. jërëjëf waaye su fekkee ne jub na it ci ndimbalu yàlla la ak sunu barke kilifa. dëgg si Malick yàlla na lépp nekk dégg-dégg si nit ñi. dégg bu rafet ci sa barke. si Malick yow lay wax ne ñu ngi lay nuyu di la ziyaaraat di la waxaat sa taalu be sa taalube bu doye di bii mu ngi lay gën a joxaat boppam di la gën a dénkuwaat boppam gannaaw yàlla tabaaraka wa taala moom la ñu am na ko yalla fay na ko yàlla fay na ko yàlla fay na ko yàlla fay yàlla na ngay yàgg bay wax yàlla doy na loo yootu loo namm loo jéem te xam naa ne jéemoo dara lu la yàlla di jox rek la nga koy joxe si Malick dundal dundal dundal dundal ba doyal waaw kon nag alhamdulilah allah waa tele bi ñu ngi leen di sargal Alaaji Matar dëgg ñu ngi koy sargal ndax mm. na ma ko waxee ca këram mm-hmm. mat na baay mm-hmm. mat na maam mm-hmm. mat na nijaay waaye it mat na njiit Uh-huh. surtout ci kanamu Serigne Moustapha. si Malick ñu ngi la koy seedeel Alaaji Matar. merci beaucoup ak Mbooseek keneen ku fi mënti nekk rek. journal dafa jot. jërëjëf jërëjëf Mouhamadou Abdoulaye Ndoye rek. Alaaji Mouhamadou Abdoulaye Ndoye ak ñi fi nekk ñëpp waaw taawu baay. waaw wallaay incha allah wallaay incha kon nag ñu ngi loolu moo doon mm-hmm. kuuru tay bi. Mm-hmm. ñu jox dig daje ba. fukki fan ak juróom yeneen incha allah mhm. ci beneen thème mhm. ci beneen invité wasalaamualeykum wa rahmatullah jërëjëf